daal maa ngi doon xaar benn single bu bees déjà nuyool. salaamaaleykum mbokk internet yu euh, Sénégal ah di leen jaajëfal di kontaan encore une fois vraiment def interview bi ak yéen ça me fait énormément plaisir. Saint Valentin bi maa ngi doon xaar lu bees di xaar beneen wayu mbëggeel bu ñu bu ñu daaneel mais gisuma daal. bon pourtant mi ngi doon ñëw am na benn boo xam ne waajaloon nañ ko tegoon nañ ko déjà ci. ci naroon nañ ko teg ci marché bi mais malheureusement euh, xam nga ñun dañu bëgg def loo xam ne vraiment euh, lu professionnel et du coup on a on a on a décidé d'attendre xam nga euh, ba semaine prochaine incha allah ñu def ko benn cover bu simple la Whitney Houston ku ko xool ku ko xam xam ne ndaanaan la légende la kooku reprendre morceau c'est autre chose donc di leen wax ni rek bientôt incha allah vous aurez ça. alors 2020 bi tàmbale nañ ko surprise yi lan nga ñu pareel ci année bi album. waaw ci année bi incha allah y aura beaucoup de spectacles yoo xam ne dinañ ko prévoir euh, maa ngi waajal ay événement et ñu ngi ciy tra ñu ngi ciy liggéey ak euh, sama staff et tout aussi y a aussi mon album vraiment parce que jot na ah fan si yaa xaar ku ne di ma laaj. incha allahu loolu dinañ ko teg ci marché bi bientôt donc ñoo ngi xool ban kanaan lañ mën a euh, euh, lañ mën a jaar xam nga def promotion bi nga xam ne moom la album bi yellool ñoo ngi jàngat daal terrain bi ba nga xam ne album bi bu ñëwee rek euh, ñëpp dinañ ci mën a jot incha allahu. nañ la ci beneen sonorité boo xam ne buñ la xam. bien sûr bien sûr parce que album bi album bi barina ay couleur bëri na ay couleur bëri na ay affaires yu ci nekk parce que depuis 2015 ñoo ngi ciy liggéey. donc euh, am na boo xam ne am na euh, dañ mën naa wax ni dañ ko dañ ko xaaj ay parti am na parti boo xam ne musique boo xam ne boo ko dégloo euh, ñi nga xam ne mooy tubaab yeeg quelque chose comme ça ñoom dinañ ko mën a consommer mais ñi nga xam ne tamit ñoo nekk fii Sénégal dinañ mën a consommer mbalax bi lépp mu ngi ci biir donc jël nañ album bi daal def ko ba nga xam ne muy national di international dinañ ko mën a dinañ ko mën a consommer comme euh, ni mu nga xam ne dinañ ko consommer normalement. dernière question bu ma def remarque bi yow ak Demba gisee lan mooy seen dem ba Guissé mais léegi léegi y a y a une dame boo xam ne laaj na ma ko léegi léegi ma ne ko dem ba Guissé c'est un frère ba gisee yàlla moo tiim c'est un frère moom moo ma jiitu ci aar téeméeri junni yoon Demba Guissé je pense que man fii laa ko fekk. je pense que dem ba gisee ba muy commencé woy ak léegi ay 2006 la mille cinq ah yàgg na trop man ba ba mu commencé woy fekk na maa ngi nekk lu ndaw yaa ngi dem ba gisee aw ma moom benn problème barki Demba Ndiaye lañ tase si dëj on était ensemble ñu jàmm sant et tout. donc da ngeen di xëccoo Baaba Maal ku ne day xëcc Baaba Maal ko te. mais non bon loolu moom wax dëgg yàlla man. moo leen xaw a am tuuti séparation. man j'ai pas j'ai pas senti ça ah j'ai pas senti ça en plus di leeral moi je suis le fils de Mbassou Niang je suis le fils de Baba Mal d'accord mais Mbassou Niang était un artiste Mbassou Niang était un artiste il était aussi un homme de culture Mbassou Niang était l'ami de Baba Mal d'accord il était son ménageur. xam nga donc euh, ku ne Baaba Maal wax mbasu ku ne mbasu wax Baaba Maal et man sama papa ba may commencé woy dafa jël suma loxo yóbbu ko ba ci Baaba Maal ne ma dénk naa la sama taaw bii lay sama euh, kii kii di kan Diallo moom nga ménager ko donc Baaba Maal en tant que père sama ménageur mais quand même man kan Diallo man je crois à mon talent c'est-à-dire euh, Baaba Maal qui soit là man je me disais ni même mon père s'il était là euh, soxlawu ma mu jàppale ma. parce que man mun naa fighting lijjanti suma bopp sans l'aide de personne xanaa ñu may ñaanal ak ñi nga xam ne ñooy sumay nit yu ànd am di jàmm parce que fii ku ñemee dañ laa dey fii ku fi tàkk tamit dañ laa jàppale et moi je crois qu'à Allah Sénégal laay waxee xam nga donc man loolu laa def suma xol loolu laa def suma xel te loolu laay jëfee et incha allahu gëm naa ni yàlla suñu borom dina ma si jàppale je suis Kane Diallo Kane Diallo Welma et je veux devenir Kane Diallo Welma le fils de Massounia et le fils de Baba Mal incha allah. ku ñëw woo nga ñëw teewal ko sa bos kañ sama bos. wala nga njëkkee Sorano def naa bon en fait mën na am ça dépend xam nga euh, nit boo ko jiitalee doo ko jiitu am naa sama staff am naa un ménageur qui ont le droit de faire. ñoom ñooy décider ñoom ñooy wax temps jour bi la temps temps temps ñoom ñooy def lépp jox naa leen lépp donc man dama croiser les bras am naa nag sama choix sama choix nag man dama bëgg kuy ñëw sama soirée une classe ah man dama bëgg lépp classe en fait waxuma ko pour gala les dîners waxuma ko pour sous-estimer ou quelque chose comme ça mais man man dama bëgg lu classe dama bëgg loo xam ne vraiment euh, da ngay toog ma woyal la yoraa dina am ambiance mais bien sûr yëfi mag lañ koy def nit ku nekk nag ak sa façon bi ngay liggéey ak sa façon bi ngay euh, defee donc man je suis une personne très euh, calme mais quand même je fais de la musique je fais de l'ambiance c'est ça. Mm.